une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki way jur yi mbokki parents d'élèves yi euh, trois heures moins trois trois heures ci guddi moins trois ci lay def audio bi euh, li ko waral nag mooy taw bu bari boo xam ne wàcc na ci guddi ci une heure deux ba fi mu ne nii trois heures moins trois wala moins deux mi ngi taw taw bu bari euh, yàlla dogal na nag fii ci daara ji néegi dongo yi nga xam ne xaw na amub diir mel naa ne dafay senn dafay dafay sotti ku ndox bu bare bare bare ba teere naa dongo yi mën a tëdd nelaw ah, xam nga ne seng moom dafa woyof ca gone yi dañuy yéeg ci kaw di sànni ci kaw lu ne ba waral na ni mu dajji koo daal doy na waar ba bu dee taw mën naa ne juróomi néeg yi nga xam ne moom lañ fi mujj moom lañ fi njëkkoon a def yëpp ñu ciy tëdd daanaka bu xasee di taw guddi moom duñ mën a tëdd kon nag woote gi wooteeg wallu la yuuxug wallu la goo xam ne alquran mooy leen di woo ca nu mu gën a gaawe ñu fexe ba defar néeg yooyu xaddaat ko ba nga xam ne ah, bu dee taw tamit lu mu guddi guddi du teego ne mën a mën a tëdd dalu fi mu ne ni dañoo obligé maanaa ubbi mbaarum njàng mi tappe yi ñuy jànge ñu lal ko ngir gone yi tëdd ci man cee nelaw ba suba ca fi ñuy jànge nag ah, munta nekk ab tëddukaay kon lii lu taxaw la lu yàkkamti la loo xam ne kenn ku nekk war nga koo déglu war nga koo daal di ca saasa ku fanaanoon sa kër mm, sab ni xeddi ko wala am lu ci yàq ba mu laa nelaw boo xëwee suba sa yitte yëpp da nga ko cay def kon nag njaboot gi nga xam ne moom lañu yàlla boole ñuy jàng alquran lii dal na sunu kaw nañ ci taxaw tem tem temm ci jëm ko saafara waaye mbokk yi nanu xam ne nag ni ñu defare mbaar mi ba mu mel nii a nañu am pëstéefu àndaat defaat yitte ci néegu gone yi mu doon fexe ba maanaam defaat yitte ci néegu gone yi ba su ëllëgee bu ñu nawet fekkitee jàmm nag moom bu dee taw du senn ca incha allah lu manu la suñu yittee suñu yittele lool suñu yittele lool ndax eh, eh, mbaar mi ba ñu koy tàmbali loolu rek moo ko tabaxoon ba mu agsi fii suñu àndee def ci suñu yitte rek songu ko yàlla dana ñëw ak ndimbalam alxuraan dana ñëw ak ndimbalam kon daal audio bi ma koy def maa ngi koy def ci trois heures trois heures trois heures zéro ci guddi maanaam trois heures moins trois wala moins deux ku xool ne audio bi ci lañ ko def kon wooteeg wàllu la boog alxuraan moo leen koy woo ci néegu gone yi nga xamante ne bi xeddiku na wala Eh, ba bu dee taw moom duñu mën a nelaw guddi ni nii may wax ak yéen dañu obligé évacuer maanaam xale yépp ci mbaara mi ngi jànge yi ñu daan jànge ngir ñu mën cee tëdd loolu nag dañ koy def mu àqat kon nañu daal di tax mu def yitte ci mel ne fexe ba néegi moom bu mu sennati waaye bu ñu yem foofu nag nañu def yitte ci bu ëllëgee bu nawet bi jàllee ñu fexe liggéey néeg yi nag ba mel ni mu war a mel ba bu taw lay ñëw kenn du xalaat ne donga ba ma ngay tawte wala néeg ba ma ngay ma ngay wale mbaa dara waaye fi mu nii ku ñëwoon gis seen néeg yi da gis ne maanaam mat laa yeeg gaal yeeg lépp ànd tooy lépp ànd euh, day lool te loolu munta yàgg kon wàllu gii daal maa ngi koy woo mbooleem Pana Jële waaye di ci woo tamit mbooleem ku mosoon jaar ci daara ji waaye di ci woo tamit bépp jurit boo xam ne alxuraan ak daara yi teel na la nga def ko ngir yàlla yal nañu yàlla alxuraan boole xettali yal nañu yàlla alxuraan boole dimbale képp koo xamante ne bii nag mën nga koo tasaare ba mbir mi gën a gaaw ndax mënta wutta mën a weesu suba ak ginnaaw suba juróomi néeg yi lu ko sengewaat wut mën a weesu suba ak ginnaaw safara juróomi néeg la yoo xam ne 4 mètres la yaatoo mais 5 mètres la guddee woon 5 mètres boo xam ne véranda bu 2 la kon euh, na ñëpp dégg kàddu gi ca tasaaru ko eggale ko fa mu war a yegg ci daat ci taxaw suba suba ak ginnaaw suba ñu fexe ba seng yëpp dind ko defaraat ko mel na war a mel ca bu weesoo lii nag ñu def yitte ci waaw ci liggéey ko moom néeg yi dongo yi ba mel ne mbaari mbaam gën ko fopp uta leen ay lal uta leen ay sànke ndax tumuranke jotewut ak jàng alxuraan dara dara dara dara lu sa maana saw nekkin xana gën a aw yoon gën a jaar yoon sam njàng ak sam xel gën a mën a dal ba li ngay def nga mën gën koo mën a taxawe asalaamaaleykum wa rahmatullah wa Rafah TV une de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer